محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين noo ngi sant sunu borom subhanahu wa taala di julli di sëlmal ci ab yonente Muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi noo ngi gërëm sunu borom noo ngi koy bàkk di ko kañ bi mu defalaatee tawfiq ba ñu dellu siwaat ci ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru alquranul karim mbokk yi comme ni ñu ko xamee téere bii ñu tiim téere la bu màgg téere la bu war a fees la mu xolub fu jëm yàlla ndax amut wax ju ko gën a rëy amut wax ju ko gën a dëggu amut wax ju ko gën a jub wa man asdaqu min allahi qiila wa man asdaqu min allahi xadiisa alquran day dafay nàndal di nàmpatal xol ku gëm yàlla ndax sunu borom yi mu ci def dafay sabab ngëm yàlla dolleeku li yazdaadu imaanan maa imaanihim wa yazidu llahu alladina ihtadaw hudan ak ayat yu bari yuy firndeel ni alquran ci boppam dafay dundal xol ku gëm yàlla ñu ngi ñaan suñu borom bi asmaihi alxusna wa sifatihi alula doon na suñu borom boole ñu ci jaamam yooyu nga xam ni alquran dafay nandal seeni xol waaye di ko dundal jéego yi ñuy def ak waxtu yi ñuy jël di ko def ci bind yu mel nii borom bi subhanahu wa taala yàlla bu mu ko neenal waaye bu ñu ko fayee tamit mu fulal lu ko te it dimbale ñu mu sàmm ba dara du ko yàq ba keroog ñuy dajeeg moom kon dellu siwaat nañ ci saar yi nga xam ni moom mooy suuratul kahfi muy saaru màgg yi nga xam ni borom bi defal na nañu tawfiq ba ñu yegsi woon ci laayay ñeen fukkeel ak ñeen kon tey ñu war a tàmbalee ci laayay ñeen fukkeel ak juróom suñu borom di wax ni a'uudu billahi samii alim min alshaytan rajim من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا sunu borom subhanahu wa taala di ñu leeral ak di ñu fàttali comme ni ngeen ko gisee ci jeexintalu bind bi passé borom bi subhanahu wa taala doon nu melal àddina ak ñi nga xam ni ñoom ñooy ñi ca gëm yàlla ak ñi weddi suñu borom subhanahu wa taala waxoon naa leen ci bind bi passé ni misaal yi rot ci alquran misaal la yu yu dal misaal la yu am solo yoo xam ni di ko seetlu dafa bokk ci lii gën a dolli ngëm yàlla nit moo tax waxoon naa leen waxi magum salaf moo ne di amr ibni murra nga xam ni moom danoon wax ni bu doon rek misaal ci alquran bu ko comprendreul dafay jooy ndax day xam ni kon bokkul ci ñi am cër ndax wa tilka al amsalu nadribuha linnaasi wa ma yaqiluha illa al aalimin sunu borom subhanahu wa taala doon nu nett li àddina mii ak ñi fi gëm yàlla ak ki fi gëmut yàlla ki gëmut yàlla moom li mu am ci alal daf koy tax a beew daf koy tax a yëg boppam waaye ki gëm yàlla moom dafay xam ni su ko sunu borom su ko joxee alal nattu la sunu borom su ko xañee tamit nattu la ñaari nattu yooyu yëpp benn bu ci nekk muñ la laaj natt gu njëkk gi sant la laaj ak defee ko ni ko sunu borom bëggee nattu ñaaral gi muñ la laaj te bañ a jàmbat borom bi subhanahu wa taala dina nittali ba ci jeexintal bi ki nga xamante ni moom mooy yéefér bi moom moo gémmiñu boppam moo tax ma ne leen kon nit dina yàqal boppam léeg nit yàqu la fekk moom moo yàqal boppam walaw laa is daxalta jannataka qulta ma sha allah moo tax borom xam-xam yi sunna yi dañuy wax ni li bàyyi ko ci njàngale yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy nit ki saa bu gisee lu ko yéem ci boppam wala ci alalam wala ci keneen wala ci alalu keneen na def li ñuy tuddee at tabarruk muy ñaan yàlla subhanahu wa taala ma sha allah la quwwata illa wala barakallahu fiik yal na yàlla barkeel la yu mel noonu xam nit ki kat li mu am ci xéewal ah boo ko gisee nga ñee ko ca ñaanal ko ca waaye nga ñaanal ko ca yàlla defal ko barke tabarruk kon nit ki su fekkee gis na lu ko yéem mu wax ma sha allah la quwwata illa billah te loolu sax waxu Malik la woon imaamu Malik imaamu daaril hijra boo seetloo fatawaayu imam Malik yi saa boo ko laajee ab laaj balay tontu day wax macha allahu la quwwata illa billah doo ko tontu kon léeg-léeg yu mel noonu yu mat a bàyyi xel la waaye tamit nit ñi dañuy dimbali seen bopp di dimbali seen bopp jullit tamit ndax gémmiñ goo xam dafa am tooke nit ki xamu ko léeg-léeg mën ngaa wax te fekk jubluwoo ci yàq sax fekk dafay yàq moo tax nit ki di góorgóorlu bu baax a baax a baax rawatina su dee ay mbaax mbaax yi nit moom. yooyu buñ koy wax nanu bàyyi ba mu dem te loolu mooy sunna mbokk yi lu bare bare bari ci ñun dañuy yàqule fekk ñoom ñoo yàqal seen bopp am ñu yàqule ci ñun fekk seeni mbokk ñoo leen yàqal ndax nit ki li mu am ci lu baax loolu kenn du ko ko wax ci kanamam déedéet loolu da nga koy da nga koy fene ci mbaa boo rëcculee ba wax ko sax na nga ko réccu mbaa boo ci mënta ñàkk a wax nga wax ca lu bu dee fukk waxal genn wàllu benn baax ndax doomu aadama ñi ko yàlla bindee ay baax baaxam buñ koy waxal dafay daal di gis boppam seytaane da koy foye bu ko yàlla dimbaliwul dëgg moo tax Osmaan ibn Affan ba mu gisee benn waay bu koy tagg di wax ay wax dafa jël tibbab suuf ni ko tay ci gémmiñ gi ni ko nii la ñu ko yonente bi diggalee alayhi salaatu wasalaam gis nga moo tax kon xol ku mel ni Abu Bakr Siddiq te loolu mi ngi ko jëlee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñun fi mu nekk nii koo ci dajale ay mbaax mbaaxam di ko ko wax da ngay gis mu commencé sinkiliku di commencé neewi nag jëm ci asamaan sa parce que kontaan na defe naa li may wax noonu waaye koo ci waxal ay safaanam rek da ngay gis mu commencé mer parce que day jàpp ne da nga koo bañ ci contraire moo nekkoon doxee lu salaf ñoom ki leen doon waxal seeni safaan ngir ñuy gën a jéppi seen bopp moom lañ gënoon a bëgg ku leen di waxal seeni mbaax mbaax wala ñuy gis seen moom moo tax aw bakrin boo ko musaana waxal ay mbaax danaan allahuma la tuaxidni bima yaquluun wa jaalni xayran mimma yazunnuun waghfir li ma la yaalamuun te loolu mooy sunna ci nit ki bu ñu la waxalee say mbaax mbaax boo déggee ku lay waxal yu mel boo ko mënta tere mënoo koo tere may wax allahuma yow yàlla laa tuaxidni bima yaquluun gis nga ñii ki ñuy présenté du man ñii ki ñuy waxal du man kon bul ma jàppee li ñuy wax ndax kooku ñuy wax du man même bu ñu koy waxal yow sax neel du man fenatin waxfir li ma laa yaalamuun ñii dañoo dof rek dañoo xamul rek ndax am naa ay tooxi doona yoo xam ni ñoom xamuñu ko yow yàlla xam nga kon yow yàlla jéggal ma ñoom li ñu xamut ñetteel mu ni wajaal nii xayran ma yazun ñoom dañoo foog ne man ku baax laa te man baaxuma léegi damay ñaan nga def ma lu gën ki ñuy wax moo tax ñàkk xam sunna baaxul mbokk yi yii xoolu ñaan yu am solo nii jullit du ko xam bis bu nekk ñu koy wax rek ñuy sinkaliko su ko defee defee daal di yàqule boo naagoo da ngay daa daagu yàqule kon macha allah nit ki su gisee lu rafet macha allah su gisee lu ko yéem kadalika su gisee mbirum sa mbokk ah yàlla yow de yàlla na yàlla barkeel la xoolal doom tey te te lu lu métti la ci société boo xam ne ni sunna la ñuy dund nit ki day am doom ak ak soxna si mbaa sonn mbaa mbaa am na jàmm lu mu am du ah alhamdulilah am na góor jeex na pare nañ ca subhaana rabbina al aala mbokk yi xoolal ñaata mbokk nga xam yi góorgóorlu ñoo xam ne xanaa kenn sax bu ci ñaanal yàlla nangu barakallahu laka fi mawhubi lak wa shakarta alwahiba wa ruziqta birra wa balaga asudda yéen ni ngeen yaakaar ni mbooloo bi bu ñu la ko ñaanaloon du am ay benn benn yàlla nangul ñooñu bu la ko yàlla nangulee liir bi am na sens yow mii am nga sens yow it waaye xoolal da ngay gis ñëpp li ñuy laaj mbaa soxna sonn mbaa nangam mbaa nangam waaye ñaanu sunn bi lay barke déedéet même bu la yàlla wërsëgalee lu bees tamit kadalika kon sunna li mu jàngale mooy nit ki su fekkee ni gis na dara lu ko yéemu def tabarruk wala boog bu gisee lu ko yéemu bañ a naagu waay mu wax ma sha allah quwata illa billah sunu borom subhanahu wa taala kon ci mujjantalu bind boobu gis ngeen waa ji fi mu mujjee waaye nag péete gi dëgg dëgg dëgg fa yàlla rek mooy la gën a wóor huwa xayrun salaam wa xayrun aqba sunu borom wadrib lahum léegi saddal leen matalal xayaati dunia misaalam àddina nii àddina kat ñun dañ fee nekk waaye fi ne dégluwul waxi kenn lu toll ni li ñuy déglu waxi sunu borom sunu borom mu ni kon saddal leen meneen misaal wadrib lahum saddal leen matalal xayaati dunia misaalam àddina bii ñu nekk ni mel sunu borom mu ni kamaa in mi ngi mel ni am ndox anzalnaahu nun yàlla ñoo ko wàcc min asamaai waaye koo ci asamaan muy taw faxtalaqa bihi mu daal di jaxasoo nag commencé di jébbi ci ndox ma nabatul ardi gàncax gi nekk ci biir suuf si nawet bi naat nëtëx vert ba amul diir rek fa asbaha mu daal di mujj nekk hashiman di mbob di ñax mu wow tasruuhu mu koy tasaare di ko wëndeel ci jaww ji arriyaaxu ngelaw li mooy nawet bi jeex na àddina jeex wa kaana allahu sunu borom yàlla dañut di nekk te musul di dañ di nekk te du dañ di nekk ba faw ala kulli shay'in ci bépp mbir moo gis rek muqtadiran di ki ci am kàttan lii mooy misaalam àddina mbokk yi lii ngay gis lépp mu di la yéem inna ja'alna ma ala al ardi zinatan laha gisoon ngeen ko ci tàmbali saar wi yépp ay taari taari àddina la rek wallahi al azim lii feesul woon abadan bëtu saxaaba yi wala taabi'uun yi ndax ñoom ñooy xayrul quruun ak taabi'u taabi'uun yi al quruun salaasa al mufaddala ñetti téeméeri at yi sës rëkk te yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñoom yii ñuy yéem tey matériel yi àddina yi puukar yi yéemu leen woon parce que ñoom xamoon nañu yàlla jaala ma ala al ardi zinatan laha da koy taaralee àddina rek te yow moom moo àddina bu ko defee da nga koy dàq ndeysaan di ko dàq di ko dàq di ko dàq ba sonn xëy mu mbas la dem yoonam lim la may daa am ci kum ko nangoo jox la ko kon séentul mu nangu ko ci yow jox ko keneen keneen keneen suñu borom mu ni misaalam àddina mi ngi mel ni nawet dañuy toog ba mu yàgg naa fan yii kat ab bàq ngi xeeñ boo demee ci àll ba loolu la ñuy wax bàq bàq mooy bu tawee ba tooy xëpp suuf si mi ngi mel loolu bàq lay tudd da ngay dégg ñu naan ngelaw lii kat ngelaw bàq la ñu toog ba mu yàgg ñu naan fan yii kat mi ngi nawetal lii xeeñ kat ab nawet lay xeeñ ab taw ñu toog ba mu yàgg mu xiir dajale woon yàgg mu taw taw bu tooy xet ñu ni bët sébbi na loolu waa àll bay wax ah man kat damay dem àll ba suba bay lu xew ñu ni bët daa sébbi bët sébbi na baykat yi xam nañ li may wax boo demee ci àll ba commencé toog bis bi mu tawee balaa dellu si rek nga gis gàncax gi commencé focc subhaana rabbina al aala nga gis ñax gi nga xam ne boo doon tamee boo doon lay da nga wër ba zone doo ko gis te mi ngi ci suuf si mu daal di toj suuf si xar ko génne ab boppam di sax jëm ci asamaan si nga toog ay fan nag àll bi daal di nëtëx daal di naat ajabal kuffaara nabaatu àll bi nëtëx naat vert rafet lool te xoolal ab diir a ngi woon suuf si dafa deewoon léegi àll bi naat na rafet na nat yi suur jur gi suur léegi yow bu fekkee ku gàtt xel nga da nga yaakaar ni jamono bi yëpp nii lay continuer mel ab nawet lay doon fekk déedéet ndeysaan nawet sax daa yàggut nag moom léegi sax daa matatu ñetti weer sa faf léegi xoolal ki nga xamante ni moom dafa naagu ci biir nawet ba mu yàqu la ci te fekk noor a ngi ñëw lim amoon lépp mu investir ko ci nawet bi bàyyiwul xel noor ñu toog ñetti weer rek affaire ba ni mex mu commencé yàqule addinaa ngi noonu boo toppee alquran da ngay gis yu bëri i'lamu annama xayaatu dunya laibun wa lahwun wa zina wa tafaaxurun baynakum wa takaasurun fi l amwal wal awlaad suratul hadid dooneen suratul yunus innama masalul xayaati dunya ka aaya ja ci surtu yunus sunu borom mi ngi wax ni subhanahu wa taala maanaam ci surtu yunus aaya ju mel noonu misaalam àddina day mi ngi mel ni taw فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها gis nga aay yu mel noonu bari na ci alquran lool suñu borom di melal àddina akub nawet kamasal gaysin ajaba alkuffara nabatu summa yahiiju fa taraahu musfarran summa yakunu xutaama béykat bi yéemu na ndax nawet bi ni mu nëtëxee waaye mu daal di wëlbatiku nekk mboob ndeysaan daal di verte su ma yëg mu commencé lax di gooy ah daal di nekk lu nu mu tuddati jaune fatarahu musfarra mu jaune summa yakunu xutaama daal di nekk moxñaatoo wa fi l axirati adabun shadid mbugal métti ma ngay xaare fële ci àllaaxira yal na yàlla musal ci kon sunu borom mu ni misaalam àddina mi ngi noonu kon lii kat sabab la su réengoog su war a tax nit ki góorgóorlu digganteem ak boroomam subhanahu wa taala moo tax yéen jàll bi ne addunya xulwatun xadura àddina daal ni mën a mel mooy lu ñor ba pare vert gis nga ci misaal tey ki yoroon boolu mango mango ji lu mu rafet rafet rafet rafet lekkal tey mbaa suba mbaa ginnaaw suba gis nga boo ko bàyyi woon ci bool bi noonu ay fan ngay ñëw fekk day nëb ba dootoo ko bëggatee moom kon lu lu lu lu teew la doomu aadama nag ngay sànn lii problème mooy moom dafa yàkkamti dafa bëgg lu teew xuliqa al insaanu min ajal wa xuliqa al insaanu ajula doomu aadama su gisee loolu du am patience du mën a dal dafay bëgg a profité ci bunt boobu fekk na maanaam ci gëm yàlla dëgg dëgg dëgg day xam ni kullu naimin siwa al janna sawfa yafnaan xéewal gudul ajara day jeex wallahi da ngay gis ajabal ujab bu fekkee da ngay liir dund salafu saalix moo tax jaadu na ci dund nit ki mu am programme boo xam ne alal aqal une fois par semaine muy déglu ñu koy waxal dund saxaaba yooyee gis nga li gën a gaaw ci njatt xol ngalaat ko ba du màmm bokk na ci téere bi ñu timit ci la bokk dafa am mbir yoo xamante ni dafay ngalaat nit gis ngeen fas nañ koy def ngalaat ko ba nga xam foo bëgg mu jëm fa nga jëm fa sa bakkan bi pour nga ngalaat ko ba fa nga bëgg mu jëm fa mu jëm fa bokk na ci li leen ci dimbali mooy yii ma wax moo tax sunu borom mu ni subhanahu wa taala kon nit ki kat war naa góorgóorlu digganteem ak boromam mu xam ne addina bi dafay jeex bal tusiruuna alxayaata addunia yéen a ngi nii addina ngeen di gënale te wala alaxiratu xayru wa abqa alaxira moo gën te day des gis nga boo jékki-jékkam yàgg yow rek nga nekk sa néeg nga tëju nga fay làmp ay salaire rek ngay dégg mu wéet lëndëm gisatoo dara ci mbiri àddina yi nga toog nag ngay waxtaan ak sa ngegenaay foofu moo baax a waxtaan ak ngegenaay ngay xalaat bu baax lëndëm gu met gu gën a ñuul gii wéetaay bu gën a wéet bii ah di nga ko wéet ak sa borom ci sa biir bàmmeel li nga amoon ci àddina yëpp bis bi nga war a faatu moom dootoo ci soxlaati lenn doo ci soxla lenn doo ci bëgg lenn moo tax dinaay faral di wax wax mbokk yi ni lépp loo xam ni booy dem doo ko yóbbaale jël sa sonn lépp loo xam ni booy dem doo ko yóbbaale jot sonn te ñun lii suñu problème mooy yi nga xam ni bu ñuy dem fi leen koy bàyyi ci leen gën a sonn que yi ñuy dem di ko yóbbaale yi dem di ko yóbbaale mooy li ñu bëgg a wax sànq li ñuy bëgg a wax léegi albaqiyatu salihat mooy marché yi nga xamante nii mooy marché wutum tiyaaba yi yi nga xam ne moom boo ko gañee moom milliards yi tiyaaba ngay am ñun nag li ñu yitteel mooy marché yoo xam ne boo ko gañee milliards yi koppar ngay am fekk yooyu après fi nga koy bàyyi moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ni almaalu alal ji ngeen yore dollar beeg dinaar beeg euro beeg CFA beeg yépp ci lañ dugg or beeg jama beeg wal banuuna ak doom yi sunu borom mu ni ziinatul xayaati dunya taar taari àddina kese la daanaka taxut koo am solo lool almaalu alal ji wal banuuna ak doom yi ziinatul xayaati dunya taar taari àddina kese la ndeysaan te doomu aadama loolu la gën a bëgg nag defe naa gis ngeen zuyina linnaasi xubbu shahawaati min annisaai walbanina walqanaatiri almuqantarati min aldahab walfidda yàlla mu ni doomu aadama yi dañu leen a bëggloo taaral leen bànneex moo xam ci jigéen min annisaai walbanina ay doom walqanaatiri almuqantara min alzahabi walfidda am naa nangam te banque ba am naa nangami kiloy or am naa nangam yooyu moo yitteel nit ñi gis nga alal ak doom islam terewul nit ki wut ko déedéet waaye alal ak doom ñoom ñaar dañoo amoon sabab su leen taxoon a jóg mooy nekk awn ala taatillahi subhanahu saabu loolu nekkul ak yëgal ngi ra yëgal ni ra rate nga alal ji saabu dikkee dimbaliwu la ci nga gën a jaamu yàlla doom yi saabu ndikkee nekkuñ wéttal ci nga jaamu yàlla allahu akbar Ousmane Ibn Affan ah multi milliardaire la woon ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam Abdourahman Ibn Awfin kadalik bi mu dikkee Madina dafa fekk ki ko yonent bi boole loon alayhi salaatu wasalaam saxaaba bu baax boobu ni ko ñëwal nga jël sama ñaari soxna yi xoolal koo ci gën a bëgg ma wàcc ko nga takk ko sama alal ji kaay ñu séddoo ko allahu akbar xol alal bi mu taqee ci bakkan waaw kii wax lii ak ki naan ko jëlal yàlla na yàlla barkeel la te nga alm ak dàmba ba dem te marché ba yaxantu ñi ñaar ku ci gën a baax allahu akbar xoolal ki xam nga sama jabar bi sama ñaari soxna yaa ngi nii fase naa kii takk ko bokkul ak sama ñaari soxna yaa ngi nii seetal ki nga ci gën a bëgg nga takk ko sama alal jaa ngi nii jëlal bii ak bii amaana daa fekk bii moo gën a takk sama xol waaye sama alal jaa ngi nii nañ ko xaaj ci digg bi nga tànn benn ba jël benn ba jël benn ñii jeex na ñii moom amatul waaye ñu goree bebel ni gaa yii nga xamante nii ba mu amee ñun dañu bëgg lu yomb lool ni ko barakallahu fi malika wa ahlika dullani ala suuqil madina tekkal ma marché ba moo tax benn borom xam-xam dafa toog di jàngale moom yàgg benn waaye dikk ni ko xanaa ñi nga xamante ni ñoom yunfiquuna amwaalahum bi leyli wa nahaari sirran wa alaaniya dañoo jeex ci kaw suuf mu ne ko waaw waaw zahabu maa alladina laa yasaluuna annaasa ilhaafan allahu akbar xanaa ñu doon joxe seen alal suba ngoon guddeeg bëccëg ñoom dañoo jeex mu ne ko waaw waaw ñoom dee nañ waaye ba ñuy dee dañoo yóbbaale gars yi nga xam ne lu ñu am am problème duñ laaj kenn dañuy bàyyi ak yàlla noonu kooku karwaase na ko yaram saf sax gis nga xoolal Abdourahman ibn Awf ak Ousmane ibn Affan ñaata yoon ñaata milliard allahu akbar mbokk yi tay rek tay rek sa alal bi jël ko def ko ci daawa bi rek xulul li ci nekk ci ay tiyaaba fa kayfa ka ki ko def ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne bu sellul woon nag yàlla ni ko génneel ba mu dugg yonent yàlla bi alayhi salaam di ñaanal Ousmane suba ba ngoon ci alalam allahu akbar benn bis yonent bi ne indi leen dañuy préparé jaysul osra Ousmane ibn Affan dem ut juróom-ñaar téeméeri fas mu tilee ko ñetti téeméeri gileem benn bu ci nekk mu teg ca teg teg ca jaasi indi alal nag jóor ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen yonent bi alal yéemu ko waaye xol bi mën a joxe lii da koy yéem mu jël alal ji duppal ñi ci loxo yi te naan ay waaye Ousmane ginnaaw tey loo def yow neex na suñu borom xol xol xol loolu yooyu ndax nit bëgg ko ahankay waaye xoolal doom tey ñu bëri di di di dajale njaboot doo xam ne doo ci yar kenn Omar ibn Abdul Aziz dafa suul magam Souleymane ibn Abdul Malik ñu yendu ci affaire u dëj bi ba ngoon jot mu dellu si ci këram fas yéene jaaxaan tëdd benn doomam bu tuuti fekk ko fa ci digg bëccëg ay digg bëccëg doom dina ko waa bàyyi loo nar ñi mu ne ko man kat bii ci guddi bi kii faatoo ba tey maa ngi topp tool di ko topp dama bëgg a dallu tuuti fii ba tàkkusaan ma dem ci jàkk ji def discours dajeeg jullit ñi subhaana rabbina xale bu tuuti booy bi ni ko yow bàyyi yow fi mu nekk nii am na lu sa xel daj lu lu tëdd di nelaw yow ni nga oyofal woon bopp ñu jël xeetu Muhammad yépp yenn la ko yow tan ngaa nelaw yow bàyyi ji ni bërit jug song ko di jooy daal di sant yàlla bi ko yàlla wërsëgalee njaboot goo xam ne ñoom da nga koy fàtte noonu la jugaat ci digg naaju tàng woote ci dàkka ji léegi noppul waatu xoolal xool yi dafa neex mbokk yar sa njaboot ci loolu ak am solo ak am solo ak am solo yar sa njaboot ci njub ak mbaax nga xamante ni ragal yàlla gi ngay jaay ñoom dañ la koy ëppale fuuf gën laa bëgg yiw gën laa bëgg mbaax lii la doom di jëriñ lii la alal di jëriñ saa bu alal ak doom jëriñul lii rek ràcce nga moo tax al maal wal banuun zinatul xayaati dunia suñu borom ni taataari àddina yi rek la dëgg la nag baax na am na solo ndax alal ak njaboot yooyu yëpp mën nañ laa dimbali ci jaa parce que salaf sal dañu am ay njaboot yu bari la chaque dañ doon am ay doom yu bari nga xam ngeen seen jamono ñoom danañ am lu ëpp sax ñeenti soxna li koy waral nag ndax ñeent ci la jullit war a yem waaye li koy waral mooy jamono ñu jaam am na te saa boo amee ñeent ci ay goro ay jaam moom boo ci doon fii ba fukki yoon kenn néew ci sega mën nga leen yore yore leen loolu moom ku jàng sharia xam na loolu kon ñoom dañ doon am ay njaboot yu bari boo gisee abdullah ibn omar abdullah ibn omar ay doomam dëgg la amulul ak gënalante waaye amul kum doon yamaleeg saalim ñu bari dañ doon wax sax kii daa gën a gënale saalim ci ay doomam du loolu de xam nga lan la saalim dafa gën a bëgg sunna ma gën koo bëgg te loolu am na ci droit loolu kenn ku ne ci ñun am na ci droit dëgg la bul gënalante bul ëppalante ci ci joxe jox moo tax léegi da wax yalumuuna nii fi saalimin wa alumahum wal jildatin bayna al ayni bayna al anfi wal ayni saalimun nit ñaa ngi may yedd naan da nga ëppal ci saalim mu ni ëppaluma fenn deru der wi ne sama diggante bakkan bi ak sama bët yi mooy sama doom ji di saalim lu tax parce que dafa tàggatu woon gën a bëgg sunna bi Abdullah ibn Amar du moom dong la Amar ibn Xattaab jur te amaa na léegi tey koolaat kan la Amar jur du du xamante sax ku dul Xafsa li tax mu gën a fës gën a siiw ca ragal yàlla ga ca mbaax ga ca njub ga ca gën a roy baayam bal sax am na yoo xamante ni bàyyi da ko doon yedd sax naa ko da ngaa ëppal ci royum sunna ndax bu romboon fii léegi nga ne ko yonent bi dagg na fii fàq socc dafay dagg fàq socc même bu bëggula socc loolu nag daanaka moom moo doon faral def yu mel noonu saxaaba yi doonte du ëppal nag déedéet kon almaal wal banuuna alal ak doom zinatul xayaati dunia pour puriti addina kese la taar taari addina suñu borom wal baaqiyaatu saalihaat yi nga xamante ni mooy wut màngukaayu tiyaaba yi baaqiyaatu saalihaat loolu lay tekki màngukaayu tiyaaba baaqiyaatu saalihaat nag borom xam-xam yu fasiru ni tekkee nañ ko ay tekki yu bari boo delloo ci tafasir yi ku mel ni Ibn Kathir Ibn Jarir at-Tabari الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن إمام ابن الجوزي زاد المسير نمتلتي العلامة القرآني في أضواء البيان تفاسير ييغا خم ييب ñu ciy dellu boo ci delloo wax ji yépp lii ma bëgg a wax rek lay tekki am na ñoo xam ne dañuy tekki albaqiyatu salihat moom mooy li nga xamante ni moom mooy la ilaha illa allah subhanallah alhamdulillah allahu akbar saïd ibn jubayr abdullah ibn abbas ak ñu mel noonu loolu lañ wax am na ñeneen ñu ko tekkee mooy xeeti jaamu yàlla yu sel soan yi ngay def waaye li gën a dëgër te loolu daanaka ñoom ñëpp xaw nañ caa dëppoo mooy baaqiyaatu saalihaat muy lépp loo xam ne wutukaayu tiyaaba la julli woor azaka aj màkka ila axirihi xool sa mbokkam jullit bëgg ko ngir yàlla nu mu seeti ko yërëm ko seeti ko bu feebaree lépp loo xam ne soo ko defee suñu borom kontaan ci loolu day dugg ci buntu baaqiyaatu saalihaat xatta ngay dox ba ci mbedd bi sax de la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalim loolu ci baaxee saalaxaat lay bokk dama ne nga dem ci jàkka ja rootal leen fii di sa dara tegal tegal leen fa pour ñu mën caa jàpp ci baaxee saalaxaat lay bokk jënd sax basan dem ca jàkka ja lal ko fa pour ñu cay julli ci baaxee saalaxaat lay bokk gis nga lépp loo jàpp ni soo ko defee rek dana même nga dem ba fenn jënd benn garab sax ñoom jëmbat ko ci jàkka ji mu nekk sadaqatun jaariya nga jënd kaameel ñëw teg ko ci biir jàkka ji pour julli ñi di ci jàng utab lamp andi ci jàkka ji ci baaxee saalaxaat yi lépp loo xam ni soo ko defee dana mën a tiyaab mbokk yi est ce que ñun sonn nañ ci lii déedéet bu nu nax suñu bopp ndax mag du nax boppam mag du nax boppam sonn nañ ci lii de li tax ma ne sonn nañ ci mooy boo seetloo par rapport ak li ñuy sonn ci leneen loolaa lay wan ni sonn nañ ci lii da nga gis koo xam ni subhanallah da da nga koy romb di ko seen teg ko dof ak yërëm yu setut muy sa mbëx sa mbëx yi dem fekk moo la gën a ñor ñor bataat bi la ndax moom bunt bu mu jàpp ni bu ko fëggee rek am ca tiyaaba dina ko fëgg li gis koo xam ni wallahi mbokk yi dafa yërëmtalu dund lool waaye li mu denc ci ay baaqiyaatu saalihaat ay camion mënu ko roñ kooku bu demee àllaaxira daje suñu borom dana kontaan lool moo tax suñu borom wal baaqiyaatu saalihaat wutukaayu tiyaaba yi sew tewaan yii xayrun moo gën inda rabbika fa sa borom yàlla sawaaban ab yool wa xayrun moo gën amalan di yaakaaru kaay allahu akbar ñun li ñuy yaakaar mooy la nga denc ci banque ba la nga denc ca néeg ba la nga denc ca poos ba ila axiri yooyu du alal alal lépp loo xam ni boo faatu woon léegi ñàkk ko loolu du alal loo xam ni boo faatu woon léegi ñu miraas ko jox ko seeni borom loolu du sa alal loolu alali jàmbur la waaye li nga moom muy alal mooy loo xam boo faatoo yóbbaale ko moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ni dafa jekk jekk bu yàgg mu ne baaxin baaxin loolu nag wax la joo xam daf ko doon faral di wax saxaaba dañ ko doon wax ah waay man damay jóg mais waay comme genre baat bi mel noonu ci wolof baaxin baaxin mu ne man di yéemu na damay jóg mais waay juróomi mbir a ngi nii yoo xam ne day dara gënu koo diis ci balance laa ilaha illa allah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah ak wal waladu salih yutawaffa fa yaxsibuhu walidu laa ilaha illa allah subhanallah alhamdulillah allahu akbar yi baat yooyu yëpp mu ni ak doom ju baax joo xam ne yàlla da la koo jox ba nag mu faatu nga muñ ko te xam ne yàlla mi la ko joxoon moo ko nangu mu ni bëxin bëxin damay jommee waay juróomi ngi yoo xam ni ku dajeek yàlla te fekk yaa ngi ci ngoy ba mu dëgër da nga dugg ajana gëm yàlla gëm allaaxira gëm ajana ak sabara gëm déet ci ginnaaw dee gëm tamit ni yàlla dana xisaab jaam ñu ne juróom yi ku ko gëm di ko waajal maanaam yow kat di nga tàbbi ajana kon albaqiyatu saalihaat lépp loo xam ne wutukaayu tiyaaba da ciy dugg moo tax ñu koy tuddee baqiyatu saalihaat boo jullee ba noppi gis ngeen yi ngay def subhanallah ñaata fanweer ak ñett alhamdulillah fanweer ak ñett allahu akbar fanweer ak ñett nga tëjee ko laa ilaha illallah wahdahu la sharika lahu jeex su fekkee da nga ne ci tëdd su fekkee guddi la nga def subhanallah fanweer ak ñett alhamdulillah fanweer ak ñett allahu akbar fanweer ak ñeent kon loolu moo leen wutale bu ko defee mu daal di mat li nga xamante ni moom mooy téeméer te loolu ñaan bu am solo la baaqiyaatu saalihaat la muy benn ñaareel mooy yonent bi alayhi salaatu salaam Fatima dafa ñëwoon ci moom di ko wax ni ko njël li daan métti togg gi daan métti taxam bi daan métti dëbb gi root gi damaa bëgg nga jox ma mbindaan yonent bi ne ko est-ce que doo ñëw ma jox la lu gën mbindaan ci la ko sunu bo yonent saa saam jàngal ñaan boobu mu di ko def daawul tëdd mukk lu dul te loolu bokk na ci sunna kon والباقيات الصالحات خير عند ربك متكاي تيابي خير موغن عند ربك فصبرم يالا ثوابا ابيور وخير موغن تبت املا ليغا خامت دي دي داكو ياكار سونو بروم ويوم بيسب الله خير موي بيس بو مجوبا موي بيس بيغا خامني تي لا يالاي فنگ جام ني ييب ني دال دي كوي فك سي mu àtte kenn ku ci nekk ci ay jëfam xam lam yayoo mu dugal ko fa wa yow bisub alaxira nu sayyirul jibaala ci la ñuy sempi wala suppi montagne yi ñun yàlla ci la ñuy sempi wala ñu suppi ñaar yépp da koy tekki montagne nu sayyir tamit dana tekki mel ni luy dox wa tara al jibaala taxsabuha jaamidatan wa hiya tamurru marra saxaab mooy tasiir ah yowma tamurru samaau mawran wa tasiiru al jibaalu sayran gis nga tasiir baat boobu de moom baat bi ñoo bokk nu sayyir dañuy suppi wala dañuy sempi wala dañuy déplacer mu tox man la koy daw yépp da koy tekki ndax baat bi benn bu ci nekk ñett yooyu ma wat wax ab aaya rot na ko bu ko firndeel ci alquran alaxira bu yegsee muy bis bu mujj alaxira comme ni ko olof dafa mooy alaxira alaxira mooy bis bu mujj al yawmul axir mooy bis bu mujj laa yawma baadahu bis dootul ñëwati ginnaaw adduna bi buñ fi nekkee dafa am ab àpp boo xam ne yàlla rek mooy ka ko xam bu àpp ba jeexee ku sab àpp jeex nga dem àddina bi nag bu àppam jeexee muy bis bu mujj ba nga xam ne dañuy yeewu fekk jant bi daal di fenkee fii ci sowu bi su loolu amee borom bi subhanahu wa taala dafay boole jant bi ak weer wi ah bu ko defee moom lay wax suratul qiyaama wa jumia ash-shams wal qamar ñoom ñaar bu ñu daje dañuy dafay tàkk loolu waral tàkk-tàkk bi day bari lool bu àllaaxira lëndëm day am parce que lumière bi doon indi leer mooy jant ak weer dootul amati doxalin ñu nu xamoon niis ko ba tax ñu ñeme dafay dañ moo tax àllaaxira dañuy tiit àllaaxira dañuy tiit loolu moo yawmul fazaa'il akbar moo tax suñu borom di ko tuddee yawmul fazaa'il akbar mooy bisu njàqare bu màgg gi jant bi du ñëw weer wi du ñëw amut leer dañuy xëy asamaan si lëndëm lool bu ñu yeewoo bis yeewoo bisu àjjuma lay doon nag comme ni ko yonent bi wax alayhi salaatu wasalaam bisu àjjuma lay doon te it nag ku bon rek lay fekk ci kaw suuf nag la taqumu saa illa ala shirari l ard ci ñi gën a bon ci kaw suuf la fiy fekk nga xam ne ñoom dañuy mel ni ay mbaam duñu xamante lu baax ba di ko digle duñu xamante lu bon ba di ko digle ba di ko tere ba ñu ko bàyyi déedéet su ko defee doomu aadama yi jaaxle jaaxle googu nag ci la borom bi subhanahu wa taala di tukkalee àddina bi nag malaaka bi daal di yuuxu bu yuuxoo rek mooy an nafxatu fi suur wa nufixa fi suur fa saayaqa man fi samaawaati wal ardi illa man shaa allah wa yawma yunfaxu fa fajaa man fi samaawaati wa yunfaxu fi suur fa fajaa man fi samaawaati wa fi l ard tiitaange jooju ak njàqare googu dafay dagg xol yent yàlla mu ne ki koy njëkk a dégg benn waay la bu nekk ci gétt giléemam di rat bu ko déggee rek loos wi day damm baat bi continuer nit ñi di ko dégg ku ko dégg rek mu daal di dee àddina bi yépp nag ñépp ba mu des ñu soob suñu boroom malaaka yooyu wala ñeen ca malaaka yi yàlla xam allahu borom bi subhanahu wa taala tukkal àddina bi nag léegi ñëpp faatu ak nafxatu fi su fi sóor benn bi dañuy ëf muy nafxatul faza nga xam dañuy tiit beneen bi mooy biy tax nit ñi faatu beneen bi mooy biy tax nit ñi dekki muy ñetti nafxat bu ko defee nit ñi bu ñu toog faatoo nag faatu boobu mooy du bis boobu mooy bisub àllaaxira maanaam dañuy faatu addina bi jeex tàkk suñu borom toog ba mu soob ko nag man nit ñi dañuy foog àddina bi day xëy tukki tey ci dimanche yi rek ñu àtt ñu tey ci déedéet demeewut noonu ci xadis abi hurayra te même ci sharh sahih muslim mi ngi ci sahih muslim bokk bu yàlla subhanahu wa taala dogalee malaaka mi ëf ba doomu aadama yi faatu ñoom ñépp suñu borom day toog arbaa yi na ñeen fukk ñeen fukki fan la yàlla moo xam ñeen fukki guddi yàlla moo xam ñeen fukki bis la ñeen fukki weer ñeen fukki at abu hurayra mu ne ñu noonu la ko yontu bi waxee alayhi salatu wasalam suñu borom yabal ci asamaan ci benn taw taw boo xam ni ka toll li gis nga man yi ni muy taxee nit am doom ndoxum taw moomu dafa mel ni mooy tax nit ki dekki léegi doomu aadama bu dee ci suuf si yaram bi yépp dafay seey ba mu des ak genn ak yax ku di ci digg ginnaawam yax googu nag dafay mel ni comme jiwu ñax ci suuf si taw bi su yegsee laal gàncax googu rek wala yax googu yax gi dafay sax comme ni ñax di saxee loolu tax ida bu'thira ma fi al-qubur ah nit ñi génn ci biir bàmmeel axrajat al ardu asqalaha nit ki dafa yëllu parce que dafay tax suuf suuf si lay génne day day day sax doomu aadama maa laha lu xew ah doomu aadama jamono judi suñu borom subhanahu wa taala mu ni axrajat al ardu asqalaha suuf day génne li ko diisaloon néew yëpp ay dekki bu'thira ma fi al-qubur suuf lu tax wa azinat li rabbiha wa xoqat dafa déggal yàlla moo tax moo yay déggal yàlla ndax xam na koy suñu borom wa alqat ma fiha suuf sànni li newoon ci biir lépp dëkk ko mu génn wa taxallat dañ ci ba set wécc wa azinat li rabbiha wa xoqat dafa déggal yàlla tey moo yay ndax moom xam na kuy borom subhanahu bokkul ci jinne yeeg nit ñi nga xam ñoo gën a dëgër bopp noonu doomu aadama yi nag su ko defee dañuy wax ni man baatana min marqadina hada ñun suñu nelaw yi ñu doon nelaw ku ñu yee ci lañ leen di wax hada ma waada arrahman wa sadaqa almursalun lii la ñu yàlla diggoon ndeke lii mooy alaxira mbokk yi foofu foofu dina yërëmtalu lool ndax da nga gis koo xam ne bàyyi na ci gannaawam ay yàqu-yàqu yu jara defar yu bay te dootul mën a delluwaat defar ko yawaddu alladina kafar law tusawwa bihim al ard am na ñoo xam ne bu leen yàlla tàllaloon suuf si ñuy daw ay xil pour mën a rëcc du leen doy di nga gis koo xam ne maanaam ci njàqareem moom dafay bëgg yàlla alak li bu am ci njaboot yépp ngir moom na mucc law yaftadi min adabi yawma idin bi bani wa sahibati wa axi wa fasilati allati tutwi wa man fi l ard jamian kenn koo yaakaar ni boo ko sacrifié di nga mucc rek di nga ko def te suñu borom du la defal li nga bëgg parce que loolu tooñ la léegi nag doomu aadama yi nag ci lañ leen di jiital sëgër sëgër leen jëme ci suñu borom jëme ci suñu borom yawma idin yattabiuna daa'iya la aywaja la dañuy topp wootekat bi amul jàdd amul jël déedéet wa xashaat al aswaatu lirrahman baat ñëpp naan kenn doo dégg kuy wax ay ay ay ay wala kii kan la wala koo ànd ak déedéet baat yëpp ay noppi fala tasmau illa hamsan sa nopp su amee lu muy dégg mooy capar capar tànk yi hams mooy capar capar tànk yi gis nga su ko defee nañu daal leen di jiital jëme ci yàlla subhanahu wa taala ñu ñëw aagul mahshar fañ leen di àttee léegi nag balaa nu yéeg fii ci àddina sunu borom subhanahu wa taala mu ni nu sayirul jibaal yàlla day sempi montagne yi xam ngeen ni yàlla dafa jël montagne yi wal jibaala arsaaha montagne yi moo téye suuf si su ko defee téye gi mu ko téye mooy waral du yëngatu du màbb sunu borom da koy sempi suuf si mel ni loolu la mbax lool wa yasalunaka anil jibaali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yazaruha qaan safsafan la tara fiha iwajan wala amta wa yowma nusayiru ljibal wa tara al arda barisa gis nga ayat yu bëri ci alquran borom bi subhanahu wa taala bu sempee montagne yi wekki jant bi wekki weer wi tàllal suuf si nag tub yu ba tubaddalul ardu xayra al ard li suuf si ñu miinoon xam ko di lot ay camion di ko tabaxee bokkut ak suuf say sunu borom di suppi déedéet suuf seeg asamaan si sunu borom da koy lem asamaan si yow ma natwi samaa ka tayyi sijilli lil kutub ni nga jëlee saw fooy def nii sijil foo fooy daal di lem sunu borom subhanahu wa taala mu ni noonu la ñuy lemee asamaan si doomu aadama yépp nañ nekk ci jaaxle amul kenn ku dul ne ci jaaxle gis nga fii ku la wax ni kenn mën na fa lenn kooku dalay nax waxut lu am kooku dafay kàcc waxut lu am yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafay tiit ba day sukk ay bëti xëm malaaka yëpp kadalik yonent yëpp kadalik même malaaka yi sax dañuy tiit ndax ñoom ñoo gën a xam yàlla subhanahu wa taala même yonent yàlla yi alayhim alsalatu wassalaam la ibrahima wala muusa wala isa wala yaxya wala zakariya wala gayruhu keneen ku dut ñoom ci yonent yi dañuy tiit yonent yàlla bi nee na alayhi salaam benn waaye dafa romb benn juif ci marché bi juif bi ni maa ngi gën ci yà yàlla mi nga xam ni moo tànn Muusa mu gën ci mbindeef yëpp jullit bi xàccam talaata di ku cëkk ba ma déggati ko rek nga waay doo wax yonent bi nga naan Muusa juif bi ñëw boole ko ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi woo jullit bi ni ko lu mu wax mu ni ko dafa wax ni yow yaa Moussa moo la gën yàlla moo tax mu ne yonent bi ne ko déet bu fekk nekk naan maa gën Moussa ak yaa gën Moussa loolu moom bu leen ci duggati moom bu leen ma gën a leen ci Moussa léegi ndax kat allaaxira nit ñi bu ñu tiitee tiitaangeeg njàqare ga ñëpp ñu xëm bu ñu ximmali ko man damay maay njëkk ximmali ko te su ma ximmali ko damay fekk Moussa mi ngi taxaw ci ron aras mu ne damaa xamut moom ndax daf maa njëkk ximmali ko damaa xamut ndax xëm gëm xamoon ci àddina pour bëgg a gis yàlla moom la ko sunu borom fayee tey kon bu leen ma gën a leen téete ci Moussa waaw su fekkee yenn sa salam ci ñuy xëm ñooñu te lay bokk waaw fa kay fa keneen ko dut moom dafa am yoo xamante ni xel sax da koo nangu jërul sax wax ju bari parce que loolu mënul nekk dama ni koo fay yaakaar koo yaakaar fii bu yegsee dugg duggaaral lay def comme yow amul tubay amul mbubb amul dara yent yàlla mu ne yubaasu nnaasu xufaatan uraatan xurla amul sol tubay amul sol mbubb amul sol mbaxana ñi nga mel dugg duggaaral ngay mel suñu borom ne nusayirul jibaala nga daal di suppi montagne yi wa taral arda nga daal di gis suuf si baarisatan mu tàlli ñareet wa xasarnaahum ñu dekkal nit ñi ñëpp falam nugaadir minhum ahadan suñu borom ne duñ bàyyi kenn bisu keram yawma yajmaukum li yawmi aljamci suñu borom ne bis bi ñu leen di dajale ci bisab dajaloo ba dalika yawmu tagaabun dalika bisu alaxira yowmun bis la boo xam ne majmuun lahu nnaas ci la yàlla dajale nit ñi wa dalika yowmu mashhud ñëpp a koy teewe kenn du tardé suñu borom mu ni ci beneen aaya qul inna al awalina wal axirin la majmuuna ila miqaati yowmin maalum ñu yàgg ñaar sa juróom-ñaari junniy maam su dee mat na ko ba ca aadama sa juróom-ñaar téeméeri maam ba ca aadama sa ñeenti téeméeri maam ba ca aadama ñoom ñëpp ay teew ak yow duñ la xam doo leen xam te ñoom ñoo la meññ foofu ngay gis benn doomu aadama joo xam ne boo ko séenee da ngay daw sax ne xam ngeen ni est-ce que xam ngeen ni melokaan yu nit ñu njëkk ñi ak ñu tey ñi bokkuñu ñu njëkk ñi da ngay gis ponkal moo xam ne bu taxawoon tey bopp bi day laal zinc gii ngay séen dënn baa ngi sax tëkk lépp ci kawar yaram bi mel ñoo xamee yow doo xam sax ndax nit ñi nañ doon mel ak léegi bokkatu kon mën ngay gis nit sax nga daw teg ko malaaka fekk nit la comme yow ci doomi aadama yi la bokk ñëpp ay teew amul kuy des ki kay de lekkoon ki tàbbiwoon ci géej gi ki deewoon ca lakk ga ki seeyoon ñoom ñëpp ñëpp dañuy dikkaat suñu borom ne éeyeen yàpp yu ñop ci kaw yi der yu tasaaroo yi yax yi nga nit ki ba mu dagg tànk bi dagg France ñu suur ko foofu mu ñëw Sénégal tànk bi day jóge foofu ba suufas bu fay fekk si ñu daal di monté mu mel ne moo daan mel nit ki ñëw ci kanam borom subhanahu wa taala moo tax suñu borom mu ni wa xasarnaahum ñu fan nga ñëpp falam nugaadir minhum ahadan amul kenn koo xamante ni dana des maanaam ñëpp danañ ñëw fii nag fii moo jar a waajal mbokk yi fii ku ñu fang nga ñëw yow ku indiwul daal indiwoo tubay indiwoo yére yow lan nga yaakaar ni mën nga kaa yóbbal lu dul ay tiyaab amul leneen loo yóbbaale ndax bu dee li la gën a jege mooy li ngay sol ci ay yére te loolu indiwoo ko kon la chaque ne leneen doo ko andiwaat tiyaaba rek ci tiyaaba yi du nekk looy nàmp di ko yóbbaale déedéet alaxira moom li muy nangu mooy li tukkikat yi def yóbbante say bagage mbaa nga dem mu topp sa gannaaw l'essentiel dana ñëw moom di nga ko fekk moom borom bi subhanahu wa taala mu ni wa uridu ñu daal leen di gaaral wa uridu ñu daal leen di indi nag dal leen ala rabbika ci sa borom yàlla subhanahu wa taala saffa ñu nekk ab sàppe alxaafir ibnu kafir mu ni mën naa am benn sàppe la ñuy def mën naa am ay sàppe sàppe ala kulli xaal danañ sàppe daal sàppe yu jub sunu borom na leen laqad jittumuna tey day dikkal ngeen nu kama xalaqnaakum awwala marratin comme ni ñu leen sàkkee woon kenn par kenn ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم suñu borom ni ñëw ngeen tey nag furaada kenn par kenn comme ni ngeen doon juddoo ci hôpital yi xam nga nit ñi ndeysaan jamono bi nga xamante ni kii ma ngay ngeen tey reetaan am na kuy dajal di jooy wa annahu amaata wa ahya adhaka wa abka amaata wa ahya jamono bi ñuy génne sario bi ci biir saal bi ndax waa ji dafa dee jamono jooju ñu ngi nga leew ab liir di dugal ndax daan kuy judd si lii mooy kéemtaan suñu garam amaata moo rey kee yóbbu ñu yóbbu ca morga ba wa ahya kii judd mu dugg si ci bersa adhaka moo reetaanloo kii ndax daa am céet maa ngénte wa abka mu jooyloo kële ndax dafa am dëñ gis nga borom bi subhanahu wa taala nagal di indi kën ngeen furaada kenn par kenn kama xalaqnaakum awwala marra comme ni ma leen bindee woon xoolal lim ci teg mu ni wa taraktum ma xawwalnaakum waraa zuhurikum li doxoon seen digganteeg seen borom ba ngeen mën koo jaamu anam suñu borom ni bàyyi ngeen ko seen gannaaw tey indaale wu leen ko moo tax alal ji nga war a gën a fonk mooy li lay mën a jural ay tiyaab suñu borom mu ni laqad jitumuuna dikkal ngeen nu kama xalaqnaakum comme niñ leen bindee niñ leen sàkkee woon awwala marra ci njaalbeen kenn par kenn suñu borom du jaawale kenn ak morom du jaawale jëfu kenn ak jëfu ka ca des te gis nga yii ay wax la rek waaye gis nga buñ demoon ba toll ci dëgg dëgg dëgg wallahi danañ xam ni ñu njëkk ña na alquran da nga fay jeexintal ci seeni xol ci mën a bu ñu jógee suppeeku ci saasa loolu dafa dugg suñuy xol moo tax Ousmane loo wax ni su suñu xol yi laaboon dootu suurat ci alquran te xoolal chance bu réyee nii wala tawfiq yàlla ju réyee nii mbokk yi tey ñu ngi nii faatoogunu kenn ku ci nekk am nga chance soppiwaat góorgóorlu lii la suñu borom di wax mooy lay xew àllaaxira tey kat wala yunabbi'uka mislu xabiir information yi àllaaxira moom gisoo ku la ko mën a jox mu wér ba mel ni ko suñu borom di joxe suñu borom mu ni bal li am kay mooy zaamtum da ngeen a yaakaaroon ni allan najala lakum duñ leen defal mawidan ab daje maa loolu ngeen doon foog te loolu ñuy weddi yàlla ñoo koy def zaama alladina kafaru an la yubaatu ñi nga xam dañoo weddi yaakaar nañ duñ jekk suñu borom ni qul del bada wa rabbi ahan kay giñ naa ci sama borom ni la tubaasuna dina leen dekkal du ma ci yem waaye tumma la tunabbaunna bima amiltum li ngeen doon def lépp suñu borom dana leen ko xamal tey wa dalika ala allah yasir loolu yomb yàlla subhanahu wa taala la hawla wala quwwata illa billah mbokk yi cinquante ans ci ginnaaw wala trente ans rek boo doon tafsir aaya ji ci yàlla mën a àtte jaam yi yëpp ci kàttanam nga mën na nekk lu kéemtaane waaye xoolal tey benn waaye day yore ay multi milliards ay entreprise ki société lu jaxasoo loo xam ni pour nga régler ko rek jafe na benn machine am bu ndaw lay yore cib saagam na koy dugal mën na koo bokk tas tas mu lijjanti ko ci daanaka ci lu matut cinq minutes loolu su ko doomu aadama ma ne lan nga xalaat ci sa borom subhanahu wa taala doomu aadama mën a defar benn supermarché di ci jaay def ci ay caméra yoo xamante ni benn kudd boo ko soboon ba dugal ko ci sa poos am na ku lay détecté ñu xam ne diw sàcc na benn kudd te supermarché bi dafa rëy ba doomu aadama mënu koo contrôler waaw doomu aadama su ma ne loolu yàlla adduna bii moom mënta def lu mel noonu xanaa kon ba doomu aadama ji lu mu def suñu borom gis ko ñaata ci ay chiffres yoo xam ne tey boo doon rëdd doo ko mën a rëdd machine calcul yi sa xaju ci avec technologie bi daanaka loo soxla léegi da lay fekk si yooyu yëpp doomu aadama yi xarala yu bees yi moo tax may wax ni maanaam alquran kum jommal ba noppi leneen dootu la mën a jommal ci parce que yeneen yii di xew yëpp rek daf lay gën a dolliwaat gëm yàlla subhanahu wa taala wa ma zaadahum illa imana wa taslima gën a gëm yàlla gën a jébbalul yàlla doon kese lii lépp li muy tekki mooy sanurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayna lahum annahu lxaq gis nga yi dafay ñëw ngir di gën a dëgg di gën a firndeel di gën a tax nit ki gëm yàlla subhanahu wa taala sunu borom mu ni bal li am kay mooy zaamtum da ngeen a yaakaar ne an lan najaala lakum duñ leen defal mawidan ab dig dig boo xam ne ca la ñuy daje sunu borom mu ni wa wuda al kitaab ñu daal di teg nag téere jëf bi téere jëf bi wa kulla insaanin bakkan bu ne alzamnaahu taa'irahu fi unuqi sunu borom da koy takkal téere jëfam ci baatam alaxira wa nuxriju lahu yowma alqiyamati kitaaba feuille yi nga lundi mardi mercredi jeudi ba dimanche buy set feuille ñu boole ko mu nekk benn ba at mi jeex ñu boole mu nekk benn ba alaxira ñëw ñu boole mu nekk benn takkal la ko sa kat sa yow yaay àtt sa bopp iqra kitaabak jàngal sa téere yow yaay àtt sa bopp parce que li ci baax xam nga ko li ci bon xam nga ko est ce que mbokk yi ñun li ñuy def bëgg nañ koo fekki suñu téere yi jëf yi loolu mooy sual bi su fekkee yow am na mbir yooyu def bëgg nga koo fekk sa téere jëf bi continuer ci loolu baax na su fekkente ne mbir a ngi nii yaa ngi koy def te tey boo faatu woon bëggoo koo fekk sa téere jëf ba gaawal nga jéem a tuub ci loolu parce que téere bi moom moom du du bàyyi dara suñu borom ne wa wada al kitab ñu teg téere jëf bi attekaay bi wa nadau al mawasine al qist li yawm al qiyama balance maandu bi suñu borom ne ñu teg ko bisu àllaaxira fala tuzlamu nafsun shay'a kenn du tooñ kenn wa in kaana misqaala xabbatin min xardalin atayna biha wa kafa bina xaasibin même bu fekkonte ne li nga def dafa tolloo pepp suuf ñu indi ko moo tax luqman alxakim damay yedd doom ci la tushrik billah inna shirka la dulmun azim ba pare mu ni ko innaha in taku misqaala xabbatin min xardal fa taku fi sax fi saxratin aw fi samawati aw fi l ard yati biha allah li nga def lu mu tuuti tuuti tuuti même bu tolloo ni pepp ca montagne baag ca suuf saak ca asamaan saak suñu borom dana ko indi loolu nag nit ki bu ko gëmee dana xam ni kon kat war na maa góorgóorluwaat bu baax suñu borom mu ni wa wuda al kitaabu ñu teg téere jëf bi fa daraa nga gis al mujrimina saay saay si ñi nga xam ne naru ñoo texe musfiqiina ñi ngi ànd ak tiitaange mimma fii ci li na ci téere bi ku tiit ci sa téere jëf da ngaa wóoluwul la nga jëf waaye ñi nga xamante ni ñoom tiituñu ndeysaan la yaxzunuhum alfazaul akbar ñoom tiitaange ji ñu wax ci àllaaxira ñoom du leen laal tiitaange riiram sawara sax nga xam ne mi ngi xëcc ñoom duñ ko tiit ndax lu tax duñ tiit wa tatalaqaahum almalaika malaaka yi ñu leen di ko fële bu leen jaar fii jaar leen fële jëfee leen wa tatalaqaahum almalaika hada yawmakum alladi kuntum tuadun jaar leen fii ngeen dem suñu borom la yaxzunuhum alfazaul akbar ñoom tiit gu mag ba ñoom dañuy dañ koy dégg rek dañ leen koy nettali moo tax suñu borom subhanahu wa taala mu ni bisab àllaaxira kat bis la bu tiis alal kaafirina ci yéefar yi xayru yasir du mën a yomb ci ñoom fa dalika yawmun fa dalika yawmun asir alal kaafirina xayru yasir du yomb ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñu weddi woon suñu borom mu ni musfiqina mimma fii al mujrimin ñi nga xam ñooy saay saay ñu ngi amul kiitaange mimma fii ci li nekk ci téere jëf bi wa yaquluuna ñu ngi wax naan yaa waylatana taskare li ñeel nañu tey maa li hada alkitab ñun de yéemu nañ lan moo dal téere bi lu ne ci téere bi ba laa yugaadiru du bàyyi sagiratan lu tuuti wala kabiratan wala lu mag illaa axsaaha lu dul note nañ ko subhaana rabbina al ala soo demee ci jeexintalu suuratul ahqaaf ab aaya nga fa joo xamante nii man su ma amoon lenn lu ma ko doon méngale dama koy méngaleeg suñu machine yi tàppe tey allahu akbar inna kunna nastansixu ma kuntum taalamun taamaloon gis nga nastansix baat boobu ak nasx mi ngi bàyyi ko ci machine yi li ñuy def tey jël benn fooy dugal ko ci machine mu tàppee la ko génne la loolu mooy nasx kon dafa mel ni maanaam yii jumtukaay yi dafa waroon fàttali mbirum àllaaxira ma inna kunna nastansixu ma kuntum taamaloon ñu ngi doon tàppe di di tàppe rek yow yaa ngi jëf nekk machine yaa ngi tàppe rek machine suñu borom ñoom ñu ngi tàppe li nga doon jëf rek mu bayul dara yow da ngay xëy suba ba ngoon benn waaye nekk directeur yu société bi li xëy ci société bi yëpp mu tàppe ko pour yóbbul ko directeur bu mag ba fekk am na koo xamante ne ay malaaka ñoom ñu ngi tàppe rek nastansiqu ma kuntum taamaluun hada kitaabuna yantiqu bil xaq téere baa ngi dëgg lay wax ndaxte inna kunna dara moom kat mënu fee wax lu amul ndax inna kunna nastansiqu ma kuntum taamaluun li ngeen doon jëf ñu ngi ko doon tàppe kon waa ji dafa yéemu maa li hada alkitab laa yugaadiru du bàyyi sagiratan lu ndaw wala kabiratan wala lu mag illa axsaaha lu dul da koo note allahu akbar du bàyyi dara suñu borom mu ne ñëpp walaw xitmiir xitmiir xam ngeen xitmiir mooy lan mooy cat catas mbuum su sew soosu nga xam ne mooy tëdd ci xar-xarab tàndarma dara du des lépp borom bi subhanahu wa taala da koy indi wa wajadu ma amilu xaadira suñu borom mu ne ngeen fekk li ngeen doon jëf yëpp nag teew jiitu leen fa yawma tajidu kullu nafsin ma amila min xayrin muxdara li nga defoon ci aw yiw nit ki nekku jar neexa moom wa ma amilat min suuin li nga doon def ci ay ñaaw ñaaw yawaddu law anna baynahu wa baynaha amadan baida da ngay mbébét na la sori comme ni la penk bi wa saw saw bi sori suñu borom ni wa wajadu fekk nañ ma amilu liñ doon jëf xaadiran mu teew wala yazlimu du tooñ rabbuka sa borom yàlla ahadan kenn wa ma rabbuka bi dallamin lil abid wala yazlimu du tooñ rabbuka sa borom yàlla ahadan kenn déedéet yàlla xarama zulma ala nafsi wa jaalahu muharraman baynana yàlla dafa xaramal tooñ ci boppam njëkk te moom du tooñ waaye mu aramal ko ci ñun yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne yàlla dina àtte ba dina jël am xar moo xam ni ay béjjënam dafa foqoon dañ koo mbëkk moroomu xaram moo ko mbëkk ba ay béjjënam foq suñu borom saxalal xar mi miñ mbëkk ay béjjën ñi ko fayul ndax yàlla tey du tooñ kenn même xar yi sax bu amee àq borom di nga ko delloo mbokk yi fu yàlla subhanahu wa taala di fayant fayantee ay jëf ba rab yi ñuy dellante ay àq yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ni yàlla de subhanahu wa taala bu dekkalee nit ñi àllaaxira nga xam ni doomu aadama yi dañuy dégg ab baax mu jege lool ndax ulaayika yunaadawna min makaanin baid wootante gi li muy sori sori day jege yoo suuf si nekk suuf si tàlli ñareet ardul mahsar comme mooñ ci nooyaay comme mooñit ci weexaay ki nekk ca wet gële dafay seen ki nekk ci wet ga ca des ñëpp di seenante doomu aadama yëpp teew sunu borom mu ni kenn du manqué sunu borom di leen àtt ci noonu sunu borom daal di wax ci kàddu gu fort nit ñi di ko dégg mu ni man de man maay buur man maay àttekat bi di faykat bi tey de jaaduwut kenn di ameel àq moromam lu dul dana ko ko delloo mbokk yi même bu nekkoon ci ni ki nga ameel àq ci waa safara la bokk sax dinga ko ko fay suñu borom danaan amul àq kenn du ameel àq waa safara donte dugg nga ajana lu dul danga koy fay kenn du ameel àq waa ajana donte dugg nga safara lu dul danañ ko fay yonent yàlla mu ni sallallahu alayhi wasallam góorgóorlu leen ci ngeen delloonte àq yi ngeen amelante bisa ngi ñëw boo xam ne laa sàmma dirhamun wala dinaar dërëm amu fa dinaar amu fa franc yi ñu am amu fa waaye moo ne li ñu fay wecceekoo mooy tiyaaba gis nga nit ki boo góorgóorlu fay ko li nga ko amee ci àq ba nga dem ba àllaaxira ci mone bi nga yore nga xam ne moom nga gën a soxla te mataloo mone boobu nga koy dellooye muy tiyaaba su ko defee ndeysaan di nga gis koo xam ni yàlla da ko defal tawfiq ñu xool ko ay jëfam baax mu dem bay dugg àjjana rek benn waaye daal di wax sunu borom kële àllaaxira dañuy xamante kële amel na ma àq sàngam ci xadis bu wér yonent bi ne atadruuna manil muflis ndax xam ngeen kan mooy ku perte saxaaba yi ne ko ki perte te ku tus mooy koo xam da doon commerce affaire bi daanu mu yàqu la yonent bi ne déedéet ki perte mooy ki indi àllaaxira lu toll ni ay montagne ba pare que du ko jariñoo ci ay tiyaab lan mooy waral loolu fekk tuuroon a deret kii tooñ na kee jël na ak kële gis nga puso puso puso sax boo ko àbbee delloo ko wala tabaxasu naasa asyaahum say lu tuut tuut tuut tuut delloo ko ko allah xel danaan la fay lamset delloo ko ko ku de bul bul bul bul téye jëfi nit dara su ko defee nit bu demee bay dugg aljanna benn waaye mu ne sunu borom kii de mas na maa tuumaat ñu ne ah kon de wàccewaat leen ko mu laa di wàccaat ñu daal di natt xool tiyaaba yi tuuma nekkati mi ngi tolloog ci misaal téeméeri tiyaaba ñu daal di génn ci sa waxande tiyaaba yi téeméer daal di koy jox ni ko demal tiyaaba yi koy dugal ajana buñ ci moyee téeméer am na chance dete na ñu ne kon kon demal dugg ajana muy dem bay dugg ak benn waaye mu ni suñu borom kii moo jëloon sama yëf sama alal kii moo tuuroon sama deret kii moo nangamoon yéen muy noonu lañ koy wekkee di ko wekki di ko wekki ba ay tiyaabaam jeex takk mbokk yi lan moo gën a metti di liggéey di verser sa xaalis ci compte banque jàmm yow yonent bi nee na la alayhi salaatu wasalaam jëw daf xaram yow yaa ngi góorgóorlu biig jub nga guddi julli nga tey julli nga yoor yoor dem nga ci jàkka ja déglu nga tafsir def nga lii xoolal li nga am ci ay tiyaaba ni mu baree amut lenn looy def lu dul bi nga paree nga ne yàlla tiyaaba yi bëgguma ci dara joxal ko joxal na ko diw loolu mooy nag mooy boo toogal di jëw diw yaa ngi vidé say tiyaaba ci compte banque jàmbur ya zéro zéro zéro quatre mooy sa numéro yow nga dem jël ko zéro zéro zéro huit la chaque chiffre boo dugal ak yëfi jàmbur a fa nekk nga dugal ci yëfi jàmbur sa sa sa compte yow ndeysaan yéen ñëpp ngeen diw ak diw de moom li mu def moom de daa sàkkan ba nu benn góor trompé ko sax mun mun ko xamoon naa ko moom koy nangam allahu akbar moom bàkkaar bi mu def moom la concerné digganteem ak yàlla yow doo borom xam-xam lii ngay wax amul benn njariñ ñaanal ko yàlla te nga maanu gis nga su ko defee yow nga wax loolu ma wax loolu kii wax loolu kee wax loolu kee wax loolu su ko defee moom am na juróom-ñaari junni tiyaaba ci liñ ko jëwee te bàkkaaram bi matul ñeenti junni kooku moom bàkkaaram bi kat moo tax ibni taymiya day wax ni ndekete bàkkaar dina ñor di nit ba tàbbal ko àjjana ndeke mooy yàlla dina ñor di nit ndeke bàkkaar dina ñor di nit ba tàbbal ko àjjana tiyaaba dana ñor di nit ba tàbbal ko sawar ak waaw waa ji def bàkkaar tuub na jéggalu na jooyal na yàlla jub na guddi ba foofa loolu mooy sabab mu jaar fa suppeeku moom bàkkaar baa ko tax a baax la waa ji def ay tiyaaba di naagoo kaas maa ko def ak su dul woon ak man ak ba far ko ñàkk kooku tiyaaba yaa ko tàmbal sama bu amee bu duggee sawar su ko defee ndeysaan ñuy fay di fay ba waa ji jeexal tàkk tiyaaba léegi nag foofu ñuy lijjantee ndax moom dina tàbbi àjjana du fa tàbbi parce que amoon nay tiyaaba yeneen gaa yeeg si am na benn waay bu yegsee mu ni kii moo tuuroon sama deret te tuurum deret yàlla da koy fayeeku ñu ne ah kii de moom ay tiyaabaam jeex na mu ni man même bu tiyaabaam jeexee yow sunu borom yow yaay buur bu màgg bi te yow yaa waxoon ni amul kenn kuy amel moroomam yiw lu dul dana ko ko fay sunu borom ni ah li fi des de mooy xanaa comme moom am na yi tiyaaba tiyaaba ya jeex na léegi yow seetal sa waxande bàkkaar lu fa nekk nga xool fekk yow bàkkaar yi bari moo la sonal ñu ne ah yow kat tuur deret kat dox dëgg yàlla dafa foor nag moom ndax tuur deret moom danañ ko jëral ñaari junniy tiyaaba te tiyaaba yi jeex na comme tiyaa ñaari junniy tiyaaba la woon tiyaaba yi jeex na léegi yow nan la videel ñaari junniy bàkkaar nga génn ko say bàkkaar jox ko waajee su ko defee ki naroon dem àjjana léegi muy dugg safara kee naroon dem safara moom biñ ko génnee junniy tiyaaba junniy bàkkaar am na lu mu duggee àjjana kon mbokk yi bunt bu mas a bàyyi xel a ngi nii boo xam ni kenn ku ci nekk ci ñun ci kemtalaay ni mu góorgóorloo ci bunt bi ci la ko sunu borom di mu musalee moo tax sunu borom mu ni wa wajadu ñu fekk maa amilu lañ doon jëf xaadiran mu teew sunu borom xaarte ca loola tey wala yazlimu du tooñ rabbuka sa borom yàlla ahadan kenn sunu borom du tooñ kenn noo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala bi asmail xusna wa sifatihi al ula yal na yàlla subhanahu wa taala xiirtal nu ci def yiw firtal nu ci moytandiku ay bàkkaar lépp loo xamante ni moo ñu nar a sonal ëllëg ci ay bàkkaar yal na yàlla subhanahu wa taala dimbali ñu mën koy tuub ci ci saasa lépp loo xamante ni moo ñuy dollil sunu yiw yal na yàlla xiirtal nu ci loolu sawarloo ñu ca wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi